accident bi gaan bi deuxième position la jógee fekk moom moom nii la bëggoon a dugg ñun ñun ligne gauche ligne tout droit lañ yor moom moom moo waral soog bi yëpp moo ko waral ñun dañ koo moytu ba dugg nii ak soo mi noonu la demee moom moo moom moo jëlee deuxième position la jógee moom. ñaata nekkoon ci oto bi. ñun ñaar rek ñoo ci nekkoon ak chauffeur bi. chauffeur mi ngi fii. waaw mi ngi fii soriwul kay. Ah, léegi moom oto bii moom anamu. non kooku moom gisuma ko wax dëgg yàlla. bi mi ngi joge kii école normale la jógee. léegi bi mu ñëwee bay waaj a jàdd en face cité Tobago bi man ci laa gis xaw ma moom moo doon doublé kii bi 4-4 bi xaw ma 4 bi moo ko doon doublé après ci la ko car rapide bi mu bëgg jéggeex ñun dugg ci biir. chauffeur yi foog gars yi conscient gars yi nu ñuy nu ñuy dawalee tamit baaxul dañoo indi foog ñuy mayante xol la dawal xol la foog euh, yenn yi ngay bàyyi rek rek mu jàll mais force yeeg yenn ki te it foog ñuy contrôler physique technique. dama ne man mii maa ci gën néew la métti métti parce que yaa ngi gis apprenti bi ma nga fële tëdd bi ni man bi may wàcc juste ci moom laa yem. woote naa woote woote ba sonn sapeur nangul jël ça fait 30 minutes sapeur nangul jël c'est pas normal foog ñu jéem a xool ci yooyu. ñoo ngi fii ci VDN bi accident bu méttee métti moo fi am ni ngeen ko gisee ci image yi am na ñu ci am gaañu gaañu yu métti amit ñoo xam ne gaañu gaañu yu léger lañ ci am dellusiwaat nañu ci ni accident bi demee woon mënuñoo gis nag chauffeur bi doon dawal 4x4 bi ak chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal car rapide bi waaye ki nga xam ne mooy apprenti am am na loo xam ne jot na ko cee wax ak ñenn ñoo xam ne sax ñu ngi nekkoon ci oto bi ginnaaw bés yi ñu génn président Macky Sall sax demoon na wax ne fu mu nekk accident dootu ko toléré zéro tolérance la koy def képp ku defati lu mel noonu daan bu kawe kawe dina dal sa kaw